soyez sérieux les gars on on continue ce combat là on continue ce combat am na ñooy bind il paraît que Sonko génn na këram ak benn pajero et cetera et cetera Sonko ah, dafa am droit génn loolu loolu du du information Sonko jàppuñu ko indi luñ ko këyit pour jàpp ko pour tëj ko ci kaso mais Sonko <coughs> Sonko dafa am droit génn. Ousmane Sonko du toog ci biir këram rek nga tëj ko fa ne yow yaay kan Sonko dafa am droit génn ci dëkk bi dañoo jël passeport am pour bu génn Sénégal mais jëlaguñ dara pour bu lan lañ jël ci Sonko pour bu mu génn ci dëkk bi mais amuñu ci droit Sonko a droit de sortir droit bu ñu amul mooy jàpp ko tëj ko ci biir kër gi loolu droit boobu lañu amul mais droit Sonko am na droit génn amul benn mandat buñ ko jox amul mandat d'arrêt amul mandat buñ koy jàppee téye loolu gisuñu ko mais kooku amul droit ku amul mandat d'arrêt amoo droit génn xanaa ñu am mandat d'arrêt sax ñu ngi génn di dox seen soxla mais Sonko a droit de dem jigéen sox il est maire mais jigéen sox Sonko mooy la seen maire dafa war a dem jigéen sox bu bu ñu amee fit ñoom nañ indi mandat d'arrêt mais tant que mandat d'arrêt amul man mandat de indi ko d'amener amul mandat d'arrêt amul mandat d'amener amul <laughs> nga jàpp benn nit bu ko tëj këram deux deux semaines quand même bu tëj nit deux semaines ci biir këram te amul mandat d'arrêt amul mandat damane loolu amul fenn on a droit de sortir c'est pas pour man du information dafa am droit génn dox kenn ëpp ko droit Macky Sall génn di dox moom amul droit génn dox Sonko dafa nekk nit bu baax rek loolu moo tax mu toog fu mu toog mais bu doon man la fëq naa nday barrière yi këdd nday ba dox sama dox mais Sonko moo nekk nit du jàmm Sonko buñ koy wax ay waxu fitna man daf may jaaxal sax man Sonko damay koy xool ni ma am na fitna mais du tooñkat quoi xam nga dafa am ñu am fit nekk tooñkat comme comme sama genre gi man xeex moom a gën a kaay lekk man dama am fit ba pare nekk tooñkat tooñkat laa nag tooñkat tooñkat moom loolu loolu daa yàgg ci man moom dama mun a tooñ dama mun a tooñ boo ànd ak man jàppal ne ànd nga damaa mun a ruux mooy fekk ab gaynde gu toog mu ruux la baaraam tool yi riir yëpp fekk maa ko tooñ ab tooñkat laa mais Sonko dafa noppi calme dal <laughs> man Sonko lu koy def sax des fois damay damay ñëy man dañ may raay moom mais mais saa waay naa toog sama oto nga gis eh, sors de là sors de là sama oto noonu nga gis Sonko def nii man dafa toog ma dafa mais mais Sonko doo eh, doo doo ubbi ndey mais Sonko doo doo ubbi ndey damay toog sama oto <laughs> ma ne non ñi rey nañ ma heure bi ay ñu jot seen te lii ñu dox dox soto la soto la bu sala bu teg oto ja bu <laughs> bu ma génne bu ubbi sandata nday kat sanday ay kurfeñ ay xeexu mbedd dëgg ba ñu polombe yow yow da nga dofalu nekk sama oto ngay toj ndey oto bi nii par lan di jaay Jackie Chan wala Aminta Bachar sa bàyyi Aminta Bachar wala sa maay mooy Jackie Chan yow yaay kat sanday na toog sama oto nga jël toj ndayam nii pour lan da ngay jaay prix wala da jaay naaw ñun gis nañ fi nday Jackie Chan gis nañ fi Jet Li kattal ndayam taxawee ne bu ñu jommal ñun gis nañ fi Jet Li seetaan nañ Jet Li depuis bu ñu nekkee booy Aminata Bachchan Jackie Chan ñu ñu lay gis ñii naaw nday ci air bi di gis ay Rambo gis yëpp gis nañ leen fi ah seetaan nañ ñoom Arnold Schwarzenegger kattal ndayam taxawee ne mais gis nga Sonko gis nga moom mi ngi toog ndeysaan di ko xool di xool sans froid man aw ma sans froid boobu bu daan man la heure bi génne naa sama bopp bi foo nga toj laay génne sama bopp bi ubbi sa data nag ñan kat sa nday dama nga toj laay génne sama bi mbëkk san nday dóor lay kurfeñ laa wax mais Sonko toj Sonko Sonko Sonko mooy yàlla moom dafa am fit mais dafa dal te yàlla da ko may lu may lu bëri nit bu am fit du dal mais moom da yàlla ko may fit ba pare dal teey tekk da nga koy tooñ sax muy ree <laughs> kooku moom kooku moom soo ko beneen dimension la kooku kenn mënul benn mënu ko natt da nga koy tooñ muy ree nga tooñ ku mu ànd ak sang-froid di la xool te yàlla may ko force boo xam ne bu la attaqué woon dëkk attaqué la yàlla may na ko force boo xam bu la attaqué woon dëkk bi yëpp attaqué la boo tojoon oto mu génn dóor kurfeñ dëkk bi yëpp génn dóor la kurfeñ challenge lay doon Sonko bu jógoon tey dóor kurfañ commissaire boobu ni ko rang challenge lay doon da nga gis sénégalais mab dugg ci commissariat yi yor seen appareil di dóor commissaire yi ñu leen di challenge rang nga jël ko tag photo rang nga gis booy di concours di dugg ci commissariat yi di dajji commissariat yi di dajji poste police yi di def challenge policier rang ci bopp wala ci bët rang mu néewi rang mu néewi ci bët rang ubbil bët bi ubbil bët bi rang bu boobaa day doon challenge mais bu ko neexoon def loolu te pourtant am na force bi nga xam boo ko defoon day doon challenge ëffal bët bi ëffal bëtu commissaire bi gars yi sax mun nañ ko mun nañ mun nañ ci def chanson ëffal bët ba rang commissaire ëffal ba rang mu doon way doon ay fecc challenge lay doon parce que yàlla boo ko may loolu pourtant mënoon na ko mu doon challenge mais dafa ko dafa def teg di ko déglu tey mais man man man melu ma noonu pour man la maa ngi xeex fu ne yow nga foog ne woon dina comme comme Ousmane Sonko lu mu def amul mandat da amul amul mandat d'amener mu toog këram plus de quinze jours tey waay <laughs> bu doon man la ba ma yeewu ak sama rab ba génn sol xoolal nii laay sol rek ñëw fekk la jot <laughs> loolu la yéen commissaire yéen a taxaw nii ah ma këdd san këdd nday barrière yi këdd san katt la ndaam dug katt nday barrière yi foofu doon bu doon man la <laughs> waaye yàlla li donc après bu Sonko faloo après boo dem fi yàllaa ko dund ba ma kat seen day ba ma yow ba ngeen toog ci barrière damay ñëw nuyu la waaye yéen a toog fi ko leen di garder ni xaaral ma kat seen nday kat nday barrière yi kat nday barrière kat la nday kat kat nday barrière doo ma xaram yéen yéen a kat seen nday amul mandat dara amul mandat dama ne ngeen tëj sama kër gi naan naan du ma génn ñi naan Sonko du génn may kat kat lan katt nday barrière raag ak ñoom foofu dóoranti ko feñ vum vum dëkk bi tàkk mais Sonko du ko def pourtant amoon na force boobu mënatawuñ ko këram séene wuñ ko këram kon bu ko nekkoon génn këdd nday barrière yooyu noonu raag dëkk bi tàkk am na force boobu mais gis nga nu mu teeyee mi ngi def tekk Sonko nee naa leen yàlla da ko may lu mu may lu kenn yàlla may na ko lu raar am fit dal am fit teey am fit ba pare mun a muñ ba pare yàlla may ko doole bu rëy mais mu mun a muñ bu doon man la heure bi dee naa yàgg parce que rey naa leen wala ñu rey ma ñuy réew ñu man da damay toog di wax ma man man man nan naa la a toog fii Macky Sall di dox ay soxlaam ma toog sama kër nii <laughs> loolu sama xel sax moo ko dul nangu ma nan laa mën a toog nday nii na waay man Macky Sall yaayam daf ma gën dafa gën sama yaay Macky Sall la toog yaayam jur ko gupp man sama yaay jur ma Macky Sall moom di dox sax laam ma nekk ci mais man toog sama biir kër ñu may teg bokkuy nangu ndayam loolu moo tegal ndayam katt naa nday bu yàgg génn xuus jàll lu mu lëndëm lëndëm damay xuus jàll damm nday barrière yi dox sama dox kon nag kooku Sonko la kooku moom c'est Sonko moo nekk nit bu am fit dal teey mun a muñ ko yàlla moo ko may qualité c'est des qualités yu énorme yu ko yàlla may kooku nañ ko ko nangul rek nañ ko ko nangul rek waaw voilà nañ ko ko nangul donc lu ñuy mën a wax moom mooy su amuñu droit kenn jàppul Sonko amul mandat d'amener amul mandat d'arrêt il a droit dox ay soxlaam na génn dox ay soxlaam na def lu mu doon def def ay laay wax ak jaam yi gars yi di ko déglu Sonko la yàlla fal Sonko moo fi ne yàlla moo ko def lu mu doon kenn mënu ko arrêté kenn mënu ko téye on n'arrête pas la mer avec ses bras Sonko la yàlla fal Sonko la yàlla fal lu mu def mu saf sénégalais lu mu def mu saf sénégalais yi la yàlla folli lu mu def mu soof sénégalais yi mu fu mu jublu mu soof sénégalais loolu kese la le reste nag moom comme ni ma ko gars yi man jot koo aw ma ko nee naa leen ci niveau bu may boxee la ngeen di ma baax tuuti parce que des fois da may gis ni ngeen may bugg a wàccee ci ay niveau yoo xam ni waaye yow Mollah waxal ci euh, Adam Mbow xaw ma waxal ci Adam Mbow waxal ci ki ki ki ki jumtu si ay Wally Seck <laughs> yooyu moom dama ko dépassé yooyu moom vraiment <laughs> sama niveau sama niveau de boxe da ko xam nga ceinture dafa am ceinture orange ceinture jaune ceinture rouge ceinture marron ceinture noire yëpp dafa am am na yoo xam ni boo koy boo buggee wax ku ko waxtaanee da dem ci ceinture zone ne ceinture zone ceinture jaune mooy yow ñooy ñooy jàngi ay xamul ay nii waaw waaw waaw yooyu yooyu ceinture jaune yi la ñun cawaliñ la cawaliñ tànk yi ci kaw foofu foofu foofu cawaliñ man vraiment tollu ma foofu ma nekk di defi laaj na non kii Wally Seck concert bi yow de xoolal waaw foofu man yow yooyu ceinture jaune yi la man maa ngi ci ceinture noire yi maa ngi ci quarantième dan yi quarantième dan yi di di wuti xuur man sama tànk bi ay witti kot xuur la fii lay toog faj wàcce nday xuuru Macky Sall wang wang wang kë këdd sa nday man ci yooyu laa nekk man maa ngi ci ay cinquantième dan am na yenn débat yoo xam ne vraiment jàppale <laughs> jàppale leen ma ci rek nekkuma ci vraiment te liggéey ba nekk ay ceinture noire nekk ni naan ay aram mboo xaw ma ki njoom mboo mook ci moo ko def kii waali boo concert bi war ko am jument ñu bëgg a dem nañ dem ñu bëgg a dem xaw ma kañ la concert bi mais jàppale ni daal bu concert amee ñu bëgg a dem nañ dem ñu bëggut a dem buñ dem man sama yoon new ci concert concert am il a droit à faire son concert bu dee waa France ñoom dañuy dem ci concert am ba ñu fa bëgg a dem France léegi na ñu bëgg a dem concert ba nañ dem ci concert ba eh, <laughs> la Adam amee droit ñëw ca concert ba ñu bëggut dem bu ñu dem <laughs> loolu du lutte daal loolu daal du xeex bi vraiment <laughs> waali woyal wo xotteekut suñu naw ci waaw bu bu fekkee ni yow assumé woo jàppale askan wi nee nga doo leen woyal nee nga lijjanti woo leen sa bopp ngay lijjanti sa poos ah ku fa dem nag ndayama liggéeyul nit nag munoo ko forcer quoi sa waay àjjanaa ngi nii safaraa ngi nii waa ji ne safara lay dugg lu suñu yoon waa ji moo taxaw nee na moom waaye moom nee na kaasalu la xeexalu la waali nee na moom kaasalu la xeexalu la sa dund yoonam nekku ci boo dee lijjantiwu la boo dundee lijjantiwu la nee na moom seen état yoonam nekku ci politique yoonam nekku ci nee na moom day woy pour ngeen di laalante ak a ñamante ak a maccante ak a ak a saxante ñoo ne moom yooyu lay woy nañ safa-safa saf ñam ko macc ko roof ko ko rocci dugalal juutal ko moom nee na yooyu lay woy nee na moom yoonam new ci la ngay lekk wala la ngay affaire yow ku fa dem nag kooku yow la <laughs> mu tooñ baaxut tamit tooñ baaxut waa ji nee na la nee na moom xeesalu la nee na moom sa silib lay lijjanti nee na moom sa sa string lay lijjanti nee na nu mu leen def ba ngeen ñamante lay lijjanti li ngeen def pour ngeen mujj ci ay hôtel ak ay motel lay lijjanti ah loolu ku fa dem looloo la saf kon ña fay dem nangul leen leen loolu man koo ne sama nit bu taxawee ne man sa dund intéressé wu ma sa politique intéressé wu ma ji di def intéressé wu ma lu la intéressé mu ne seen yow nu noo sumee sa caleçon ak gelbee nu muy sumee si libam ngeen naxante seen biir GTM euh, euh, euh, comme yooyu ñuy def noonu quoi ma bëgga la nga bëgg ma ñi bëggante bëggante nee moom yooyu lay woy fexe mu ngi leen di nax yéen ñaar pour yow su sumi sa caleçon kee sumi silibam ngeen def taatu neen naxante ba juboo dugg ci hôtel yi ñamante ba fajar mooy càppantati nee na moom loolu lay lijjanti ah ñi mu saf ña nga fay dem di doxaanante seen biir kii bu futtee stringam kee su futti caleçon ñu mujj com matalia ñamante ba fajar sangu ko ne dox sa dox am nañ ci droit du tee réew mi tam fu mu nekk ma nga fa kon nag bàyyi leen leen ñu bëgg a dem ca futtante ga ci ñamante ga ca laalante ga ci roof rocci ga ah, ci juutal ga ña ña mu intéressé ña nga fa dañ leen may seen jàmm ñoom tamit jàmm la paix jàmm la bakkan bëgg bëgg mu ne am ñun ñi nekk ci guerre gi nañ ne ci guerre gi <laughs> loolu la rek kon nag Wally euh, euh, euh, sa concert boobu ngay fas yéene de France defal defal le combat continue focus 2024 focus 2024 focus 2024 bu leen dara yóbbu focus deux mille vingt quatre loolu lañ leen wax focus deux mille vingt quatre encore une fois caaxaan man new ma ci jaaru débat yooyu nekkuma ci loolu nekkuma ci caaxaan yooyu dépassé naa loolu situation politique bu sama am tal naa leneen lu kuy woy fee kuy nangam ku yor sa billet bugg a dem ñamante laalante futteeku mujj ci motel yi naxante di woyal je t'aime I love you saf na sàppale ko yokk ci bonbon wala yokk ci jimbo wala yokk ci xorom ngeen wulleeku wulli du tulleeku ndulli du buccante di laalante ak kattante loolu suñu yoon naw ci peace and I'm out le combat continue gars focus 2024 All